waxtu dama lay defal groupement passé na waxtu dama lay wutal financement passé na waxtu dañ leen di wutal carte d'identité dajale ko pour ngeen am courant xam nga loolu taxawul kon seen carte yi mooy seen ngànnaay na ngeen ko téye pour que le vingt bu jotee ni ngeen ne Amadou Ba nga xam ni président de la République Macky Sall nga xam ne mooy le champion de l'équité territoriale mooy le champion des bâti des bâtisseurs maanaam ñiy tabax réew njiit la seen chef mooy Macky Sall moo ñu joxoñ di suñu nit di suñu xarit di suñu mag di lépp ci ñu ngeen xam ko ma xam ko moom moo ñu joxoñ premier ministre Amadou Ba te nag wax dëgg yàlla mu fees place bi dell ci xam-xam ci xam nguur ci dal ci teey ci nar tàllal ñëpp loxo pour ñu bokk liggéeyal Sénégal kon dama bëgg le vingt cinq ñu sol kees yi ba mu fees dell non seulement ñu ne wiiw Amadou Ba le vingt cinq dès le premier tour waaye li koy déggloo wiiw ci arrondissement bi ak ci département bi ak ci région bi def ma nga def na woon mu jiitu ca kon loolu mooy sama appel di wax ni kooku mooy suñu candidat pour lan ñu war a def loolu dafa am ku ma dégg benn premier ministre mm-hmm. naa ko tudd sax suñu jigéen bu baax bu ñuy wax Mimi Touré mu ne bu ñu votel Amadou Ba parce que votel Amadou mooy jox Macky Sall troisième mandat man damaa tàccu juumul loolu mooy dëgg si waaye Sénégalais li ñu bëggoon du loolu dañoo bëggoon nga nekk candidat nga ne nekkuma candidat ne kii laa tànn buñ tànnee kooku tànnuñ la kon waaw dëgg la yaakaar ne mu ngi yàq waaye dafay defar ñun ci loolu lañu ne mooy falaat Macky Sall ndax fal Amadou Ba mooy falaat Macky Sall ngir lan ngir bus familial continuer ngir lan ngir dëkk courage yi dëkk yëpp continuer ngir lan ñëpp am ndox continuer ngir lan teer ak yoon